mbikum coalition bu bees tàq judd na ci ku jéeg politique gi Ablaye Wade dajale na Pape mbay Abdoul Mbaye ala san Sall ak waa jot na ak ñeneen ak ñeneen ngir fas yéene ñàkkanteeg Macky Sall wote gox-goxaat yi 24 heures yéene kaay ñu ko xamal te mooy yéene kaay ne Macky Sall benn bokk yaakaar yàqal naa leen de ñoog waa coalition yeewi askan wi ñoom Ousmane sonk fi mu toll ni am nañ wujji wu mag nag te mooy coalition Ablaye Wade bi Vox Populi na ko ngandum ponk lu maamu coalition la de Wade téye na coalition ba info yéen a kaay na ko Wade soobu na ca ñaareelu yoon wa yow seetal coalition ñoom Ousmane Sonko ba yeewe askan wi mënuñoo ànd te ku lamb yaa tey fa ngay daagu fañ la nobee moo tax ñoom ñu xamal seen coalition bopp te liñ bëgg nag mooy ñoom ñëpp ñu fas yéene am ay candidat ci mboolem diiwaan yi ci Sénégal communes yi ak département yi ba tax fi mu toll nii woo nañ képp kuy seen militant nañ fas yéene ànd nekk benn liggéey ngir mbuqi gaañi tribune yéen a kaay dëggal ko na PDS bokk gis-gis agi PADS nañ seen coalition bu bees léeg si ko yéen a kaay ne waaye suñu waxantee dëgg seen coalition ba contre nature la maanaam xel fa koo nanguwut xenuwut maanaa yaw seetal Ablaye Wade ñan ñoo ko jëlee ci nguur gi ñoom Thierno Alassane Sall yi Macky Sall lañ àndatoon xeex Wade ba jëlee ko fi Abdoul Mbaye bokkoon ak Macky Sall tey ñoom ñëpp ñu dem fekk ji ànd ak Ablaye Wade mi nga xam ne ñoo ko fi jëlee est-ce que xel nangu na ko bokk ñu gëm-gëm leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ñi ja mooy ne coalition ñoom Ousmane Sonko ba yeewi askan wi am nañ doole trop am nañ ay encore jafe-jafe enquête yéen kaay ne bokk na ca naka lañu war a fexee def ba Sénégal yëpp fu nekk ñu am fa candidat ak koo xam ne mooy jiite coalition ba loolu problème la de ak yeneen wal fajir yéen kaay mel ni ku daan ko xanaa yëgul xew Khalifa Sall ma ngay lijjantee ko dox lu yaatal seen coalition bi ci biir Sénégal yëpp leer la leer ba mel ni jant tusubaar mooy ne réew Afrique sow jant fa bëri ay coup d'état foqarti nguur waaye tamit fa bëri ay coup d'état constitutionnel seen réew bu nekk président rek fa nga koy coppi la neexee loolu it la baaxut si du quotidien moo waral nag foqarti nguur du dara lu ma ñetteelu mandat xoolal Guinée Conakry mi Burkina Mali ak yeneen réew ku bëgg a nekk président daal fa ngay waaye bés boo faloo la nga waxoon dara doo ko ca def bëgg a nekk nag jiite réew ma benn mandat ñaar ba ñetti di fararari te ku xamul buur na ñu ne la deena ba waw koŋ George Weah njiiti réew bu Libéria ci réew mi yéen a kaay ne yéen sama moromu président Afrique yi surtout yéen waa CEDEAO yéen laay wax nañ waxante lu may troisième mandat bàyyi leen troisième mandat ku def ñaari mandat même bu a a bàyyi keneen mu ñëw waaye topp nguur gi neex rek ngay laaj ñetteelu mandat moo waral ñu ñuy coup d'état loolay dëgg turbine yéen na George Weah kay wax na dëgg attaqué waa CEDEAO yi président ya ci 24 nee na fa ñoo war a andi ne ñaari mandat kenn waru koo weesooti si du quotidien na ko fi mu toll nii nag sénégalais yi ak àdduna bi yëpp Macky Sall la ñuy déglu ndax ñeme na fay laajat ñetteelu mandat ak li xew nii moo di Niang yekk na Macky Sall ak nguuram gi lu mel ni xeme ci direct news yaaw seetal nee na Macky Sall fa mel ni daal fay kekkantoo sénégalais yow fukki at bu mu fi génnee ay milliards yu bëri ngir xeexe ko mbënd mi boobu ba léegi waxut ci dara ay milliards naaw ci ngelaw yi mu toog ba jamono ji mu naan fa ñoo war leeral milliards yi fan lañ ko dugal loolu fa yéex bañ ko war def du tey moo di ñaa yokku ca ne ana junney milliards yi ñu dugal ci corona bi fañ leen a war naka noonu Prodac poste kuddu port bu Dakar waa impôt ak waa douane Promoville Ageroute Agetip ak yeneen ñoom ñëpp fañ leen a war seen milliards yi ñu leeral ko l'observateur yàq ak lakk ak yu ma la mënta wax xam nga ne baaxut li baax nag ci sénégalais yi mooy deltu ginnaaw corona bi terewul nag Abdoulaye Diouf Sarr nee na bu mu tax ñu naagu de corona bi jeexagul kàddam yaa ngi ci critique yéen a kaay source a yéen a kaay na ko voilà yow Abdoulaye Diouf Sarr sax ndawi ndakaaru yi nee nañu yaa leen doy ngir nekk candidat mairie bu ndakaaru mairie bu Koungheul nag askan wa tànn nañ Mamadou Djigo ngir mu jiite mairie ba Abdou Seck bokk APR moo ko wax ci exclusif yéen a kaay lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne Medina Baye Niass rawatina direction wu institut islamique Alaaji Abdoulaye Niass kon kontaan nañ ci sëriñ buub de yaaw seetal immeuble ba mu leen digoon ngir tabax ko ca école arabe ba maa da alaaji Abdoulaye sëriñ buub dem na fa ànd ak kilifa ya def visite de chantier xool liggéey ba fa mu toll fi mu toll ni tabax ba jóg na ca kaw ñu ngay liggéey bu baax ba tax directeur école ba Cheikh Mouhamina Ibrahima Niass gërëm ko rafet lu taxawaayam te mboolem kuy taaliba Baye Niass askanu Medina Baye yëpp kontaan nañ ci li nga def tabaxu 100 millions sëriñ buub na ko sëriñ bi a liggéey bi ngir ñi daloo immeuble bi fii ak weeru décembre balaa élection locale yi nga xam ne sëriñ candidat la ca ngir jiite maire bu Kaolack ak waa ànd defar Kaolack ba tey ñu des ca diwaanu Kaolack ndangaan ngir wax leen na njëgu dund gi conseil ba yor wàllu njënd njaay ma fixé nañu prix ya fi nii Kaolack diwlin 1300 la ñuy bi ceeb boo xam ne du parfumé kilo bi suukar bu mokk kilo 600 la dépêche a kaay ñu ko xamal vox populi na ko waalaa gis nga marche doxu ñaxtu bi askan yu bëgg amal waa ñoo lànk jëm ci dund gu googu préfet bu Ndakaaru fa bañ ne kenn du fi dajaloo Barthélemy Dias otom bi nga di ko yoroog lu ma la mënta wax da nga xam ne wuyu bànday baayam lii yéene kaay na waa Pastef yi Ousmane Sonko yi feeñal nen ay wax yoo xam ne du dëgg yu état bi def ci njëgu dund géeg ak waa kaw gi daam mbooj syndicaliste moom di ñu xamal ne tappale gu mag am na ci juróomi junne jàngalekat yu nguur gi jël fa ñoo jël ñoo xam ne befem rek lañ am amuñ bak te loolu fañ koy xaaye kàddoom yaa ngi ci info yéene kaay libération moom xamal ne ginnaaw kilifa rappeur bi ñu wax Simon moom it teg nañ ko loxo fañ koo tudd mbiru ñaari million yu mu encaissé laas yéene kaay na ko ñaari député yi nga xam ne fañ leen a tudd ci trafic passeport yooyu Mamadou Sall ak Boubacar Biaye fi mu toll nii procureur moo leen war a topp les si ko yéene kaay na ko balaa boobu nag jëwriñ ji nga xam ne lañ dénk wàllu yoon dana santaane assemblée mu summi seen malaanu kiraay yi te assemblée député yi duñ bañ loolu de fañ cay ànd ma ànd ak yéen dem ci réew mi yéene kaay fekk fa koo xam ne fa nekkoon commandant gendarmerie ca Touba boo xam ne fañ ko jàpp tëj kaso yéene kaay bi ne fa dóor maanaam tappale ab soxna bu doon commerce kilo lu fukki million ak ñaar allah comme sa jëkkër nekkatut commandant kon nag say mbir dana critique nag faay ragal nga yàgg ca kaso ga de